ci yow professeur euh, boo ko passé fan ah, moo tax may sawar laaj la ci parce que ñu am un regard boo xam ne dafay xaw a sori euh, képp ku far euh, cette affaire lan la lay inspiré mais également le nom de Diomaye bi def comme seen candidat ak tout que peut-être code électoral bi mu wax ak sa situation carcérale ban ban lecture nga ci am waaw merci beaucoup Mamadou Awa c'est vrai que depuis que ñu wax ni Diomaye moo nekk candidat Euh, ñenn ñu tuddee ko plan B euh, ça a suscité de bruit euh, mm-hmm. de bruit parce que lan moo ko waral parce que les gens étaient enthousiasmés c'est-à-dire que ñi nga xam ne dañuy réclamer de Pastef dafa mel ni en réalité comme on dit c'est le jour J dañu yàkkamti woon bis bu mel noonu mm-hmm. dañu yàkkamti woon bis ñëw ñu mën a wàcc sur le terrain parce que waaw benn second souffle parce que quoi qu'on puisse dire les autres entités politiques à l'instar parce que entre guillemets comme nu koy fonctionner ñoom dañuy wax dañuy xaar ndigal booy xaar ndigal nag jotagoo ndigal tu peux mm. du moment aussi mais le temps le temps ne n'attend sa ndigal mm. boobu ndigal boobu nga am on est inscrit dans des délais mm-hmm. yoo xam ni code électoral daf ko wax muy début parrainage mm-hmm. moment wu parrainage mais clôture des parrainages ba nga xam ni tey soo ko deful dans le moment opportun soo ko deful dans le timing électoral bi nga xam da dañ doon xaar. xaar boo xam ni ils étaient aussi tamit dans une situation d'incertitude. Mm. xam nga il faut le dire ils étaient dans une situation d'incertitude parfois en réalité il y une sorte de. de calme boo xam ne dinañ ko am d'une colbe de tranquillité boo ñu am mais nit nit la rek mhm. à un moment donné dans le fort intérieur il y a des questions qui se posent mais Ousmane fu mu toll nii parce que boo xoolee le débat di ko suivre tout au début ak candidature président Ousmane Sonko c'était benn benn hargne benn benn benn détermination boo xam ne dañ naan Ousmane ou rien du tout mhm. Ousmane kese rek quand on parlait de Ousmane c'était Ousmane intitut personnel c'était Ousmane Sonko mhm. voilà mais aussi tamit il ñu xam ne un débat dafa war a doit être dynamique. Mhm. une récession doit être évolutive à telle enseigne que soo demee ba si kanam il faut nga xam ne encore lu si Ousmane. mi ngi si jomaay mm. li si jomaay mi ngi si Biram Souley li si Biram Souley mi ngi si El mm-hmm. soo ko defee noonu daf lay yóbbu dans la passe pensée de Socrate bi muy wax vous pouvez me tuer mais il de mille Socrates yoo xam ne mm-hmm. créé nañ ko on va mm-hmm. trouve une sorte d'intelligence bi nga xam ne dem nañ ba si kanam ñu jàpp ne ah il faut que ñu am kenn koo xam ne c'est à l'image de Ousmane Sonko mais l'adversaire ni mu koy gisee mooy ils se sont résignés xam nañ ne lële deux yoo xam ne mm-hmm. dañu opposé wu donc lu kii wax keneen que contraire bi day wax mm-hmm. mais man je sais que ni suñu continuer woon dans ce même sens avec l'incertitude Euh, d'un dossier judiciaire boo xam ne mun na aboutir à la faveur de Ousmane Sonko mun na bañ a à la faveur de Ousmane Sonko comme ce qui ñu am candidat mm. donc soo xamee loolu noonu yëpp aussi da xam ne ñoom ñi ngi si stratégie wala ay stratégie en tout cas ñi ngi teg ay pexe donc suñu demee ba teg jomaay dañuy gis ni donc ce qui veut dire que c'est comme si en réalité candidature Ousmane Sonko mais man j'ai si ngoon bi may waxtaan ak benn nit mm-hmm. ma parce que un plan B en réalité dans le fond c'est la personne qui se dit plan A mooy dem ba résigné wu dem indi kenn teg mais Diomaye c'était quelqu'un ku def candidat à la candidature Diomaye dafa dem DGE ni ni ni Ayib Daffé di demee DGE mu dem récupérer fils nekk 111 mais sauf que après nag pare newul mhm. dafa toog parce que en réalité dans le fond il peuvent pas avoir cette dimension euh, politique di manquer intelligence di dem Diomaye muy teel a pare ne au même moment tey bu Cour suprême joxoon Ousmane Sonko raison bañ réintégré ko ils vont avoir des personnes. qui vont parrainer les mêmes voilà ils auraient perdu ses parrains même. sinon risque doublon en fait. doublon yi la ñuy créer parce que mhm. les mêmes personnes ñu parrainé Diomaye. ça c'est vrai mënuñu ko reverser. Mhm. d'autant plus que ces fiches d'aujourd'hui nu ñu ko defee. dañ ko chiffrer ba pare mhm. intégré ko. tey le président El Hadj Malick Gakou 47 la. kenn mënu ko jox beneen bu dul fiche bu am 47. donc bi ñu toogee nag ba nga xam ne la décision de la Cour suprême dafa génn ñu def le renvoi ba nga xam ne la l' incertitude de la date ñëw na mm-hmm. il faut le réveil des consciences nag il faut que Pastef quoi qu'on puisse dire xam ne attention c'est une mm-hmm. toogee nag di xaar loo xam ne xamuñu jugement bi kañ la xamuñu les décisions assorties des délais de recours yi nga war a dem instance yi du bare demaat suprême Cour suprême war a joxewaat une décision mun na dépasser parrainage la fermeture des ah.